suñu jaraaf ah di nuyu Khadim Cissé Ibou di la siyaar yow mon ami mbokk bi yaay Khadim kontaan naa trop yaa jëfati waaw. yan surprise la ñu mën a xaar suba si Bercy Saloum. ah yan surprise la ñu mën a xaar suba. incha allah bokk na surprise xam nga man sama lépp effet la. waaw. maa ngi lay siyaar baax. parce que Wally Seck xamoon na réellement kan mooy Pape Thione ak le fait que mu gaañu gis na réellement kan bon pour ne pas trop abuser non non parce que aussi euh, bu doon xamoon naa dëggantaan dëggantaan 100 pour cent euh, Pape Thione kon heure bi wala moo faat du ma dara. mais lépp laa koy jox lépp lépp lépp lépp ba dese zéro zéro zéro. lépp nag laa koy jox mais Wally Seck ñu gis ñu lay woowee le chanteur du peuple Wally Seck bi yàggu dara bi mu demee ci seen bëtëgal gis nga li mu fa way boo leen jàppee ma jàpp musique bi jëm kanam est-ce que jamono jii euh, mun naa ne téléji bi nekk suñu plan national jamono jii loolu la si nekkul message ñëpp war a taxaw ginnaaw mu demee Coupe Marie Sène mu dem jëli raay yoo xam ne nii ay nawleem ñu ngi koy jëli di ko yóbbu sa waaw je pense qu'on est en train de le faire les Sénégalais sont en train d'aider ils sont en train d'appuyer et y a pas que Wally fii ci waykat yi y a plein d'artistes ñun ñëpp la ñu war a jàppale ah l'essentiel mooy ku xewlee ku ku war a ku war a am bés ku war a def dara ñu jëmal ko ah jàppale artistes yëpp vraiment man moo moo souhait c'est pas c'est pas c'est pas actuellement c'est c'est pas de de de de de de la musique sénégalaise non non non non. mais waaye dafa dig Sénégal incha allah bu ñu bu ñu jàppale artistes yëpp nañ jàppale artistes parce que c' normal c' la c' est, c' est la culture sénégalaise qui gagne man je n'ai rien à perdre yàlla yàlla xam na loolu. mi ngi ñëw mi ngi ñëw man ce je ce que de conquérir le monde conquérir l' actuellement j'ai besoin de l'Afrique mhm. Afrique laay ba pare parce que moo ma gën a ñor. incha allah. fair play ñu foo ñu ñëpp c' ça qui est le Sénégal c' ça c' comme ça que ça doit se le Sénégal waaw. ñu mais xam nga fii moom euh, euh, loo gis rek day am ay ay moment li moment de détresse la rek jeex na jeex na ah nañ ko fàttee te ñaan xam nga di am te gars xam ni vraiment. le Sénégalais n'est pas violent ah ñun tukki nañu dem nañ partout dans le monde presque mais le Sénégalais n'est pas violent ça on le dit carrément le Sénégalais n'est pas violent waaw. le fait ñu lay gis ci masu man man rappeur euh, suñu xel di demaat ginnaaw jamono yi nga war a nekk léegi mujjee ci musique ça ne waaw mais c'est le destin c'est ne peut échapper à son destin c'est mon destin mënu ma ci dara ah lu yàlla nangu la rek sant jouer ñëw comme normal jouer dem incha allah.